ko ci kaw li nga xam ne waxtu mi da sukkandikoof na ko bu fekkee da bool boole yaar yëpp nag nga xam ne boo dee seet dolli nga ci wet wàññi nga ci wet dana faral di am su boobaa kon ngay ëppal doole wàññi ka daal sujjóot xabla salaam mooy njëkk sërmal te bàyyi baxda salaam danga ko gis ci biir sax foo xam ne ngaa boole doole wàññi waman na ku fàtte al qabliya sujjóotub xabla xataa sallama ba mu sëlmal sajada mu sujjóot ko inkaana ndem nekk na xariban di aji jege fanga la mën na nga xam bu fekkee na nga wàññi woon mbaa nga boole woon dooleeg wàññi ñu digal la sujjóot xabla salaam yow nga wax asalaamaaleykum fàtte woon def ñaari sujjóot ñooñu le kon dañuy seet bu fekkee ne yàggut jógoo fa nga doon jullee danga koy def rek soppi ko ne sax baxada salaam waaye nga def ko rek mu daal di baax ba in xadaandeem jéggi na nag al masjida jàkk ja aw kaana wala mu nekk bàyyi dañ di aji sori mooy di aji yàgg rek fa zaaga kon loolee butlaanu salaatin yàqu julli la wa sujoodin ak sujood fekkee dangaa waroon sujood xam ne salaam nag nga fàttaliku ba sëlmal tam yàgg boole ci nga door koo yàqu na sujood yi yàqu na maanaam daal ngay jékki-jékki julliwaat rek waaye amatoo dara ci sartum nag in kaa nekk na daaga loole xam salaasi sunna ni di bàyyi ci yetti sunna illaa ndem déet fala tabatalu kon julli ga du yàqu xindal fàtti ni fa aji xelu bu fekkee la nga fàtte woon daal mat na moom ñetti sunna bañ digaloon la nga sujootal ko xabla salaam nga fàtte ko sujootal nag ba sëlmal te mu yàgg waaw kon julli gi da yàqu nga waat ko waaye bu fekkee ne benn sunna rek nga wàññi woon ci misaal ma tuur ñett wala ñaar rek doon nga fàtte woon te léegi xas na yàgg gannaaw boo sëlmalee kon na nga koy bàyyi noonu rek du ñu sàkkooti nga sujjóot te teewul julli ga baax na nit ki bu fekkee da ngaa fàtte jàng saar wi ci gannaaw fatiha moom da nga bàyyi ñetti sunna ndax jàng saar wi sunna la taxawaay ba sunna la yàlla ko mbaa biral ga ca foofu itam sunna la soo bàyyi woon taaye digg moom ñaari sunna rek nga bàyyi ba lu moom muy ñaari sunna soo ko bàyyee su jootaloo ko xabla salaam ba mu yàgg gannaaw boo sëlmalee da koy bàyyi noonu rek du tee julli ga baax na wa man nas yi ku fàtte albaax di su jootu baax di salaam falees jut na ko su joot walaw min baax di aawaamin ak doonte ci gannaaw ay at la kama rawaw naka ñu ko nettalee an xum jëlee ci ñoom maanaam bu fekkee dañ laa digaloon su jootu ba xam salaam nga xam dolleenul kese moo koy waral kon xam nga julli ga mat na dañ koy def rek ngir toroxal saytaane moo tax lu yàgg-yàgg moom saa yoo ko fàttalikoo te amum jàpp rek daal di koy def li dund rek saa ko fàttalikoo def nga wéyegut aslu sujjóoti cosaalum sujjóot tarku sunna tey ni mooy bàyyi yaari sunna fa saa yi doon topp lu ko lal xaq si du caagéenu safaan ba duuna may njurul benn dafa wax ne sujjóot moom ci cosaan li koy waral rek mooy juum ba bàyyi yaari sunna baalu ko ëpp ndax benn sunna kese moom kenn du ko sujjóotal baa boog néew na am na sax waaye daañu la koy wax léegi bariwut te farata kenn du ko sujjóotal ndax sujjóot mënu ko defar ngëneel tam dafa jot sujjóotal moo tax moo tax mën naa la amal fara ibun daal farata ya fa sa sax tujj baru deefu leen jàng mooy deefu leen mën a defar illaa bi it yaay ndara ci ak dikkee bihaa ci ñoom iddu tuzkaru ba def na leen fàttalikoo paraka moom nee na saa yoo ko fàttalikoo def rek fekkee def ba wéy na mën su ko dabaatal mën su ko weccee ràkka ñu julliwaat rek waaye farata moom paaw day ñëw rek amal lësi ndaal ka nga xam ne xadd naqasa wàññi na fadilatan nganeel fala sujooda te sujoodi ko war mutlaxan ci lu mën a doon xëy na nga wattu alxasasa njàngat la xanaa wàññi ngëneel moom du tax a sujjóot mukk mukk ak ngëneel lu mën doon rek du tax ñu sujjóotal ko wa sunnatun sunna it waaxidatun bu di benn lay sa sujjóot ndeer sujjóot laxaa di ko ñeel si waa sirin dara yelu wa jëxrin ak biral yaa muri dañoo ab taalibe li tax ma ne la woon cosaanu sujjóot daal mooy nga bàyyi ñaari sunna mbaalu ko ëpp mooy benn sunu moom daanaka saa yoo ko bàyyee du jara sujootal nit ki boo bàyyee wax benn allahu akbar wala benn sami allahu liman xamida du jara sujootal ba mu des nag yelloog biral yelloog biral moom kenn ku ci na ngaa beru yelu waaye nag koo ci bàyyi rek la mu doon doon benn da nga ko sujootal kon nga takk takk takk boobu ñu wax la ko nga dégg wala tax jural na nga sujoot xawle salaam njëkk sëlmal in takku ndéem na ngaa nekk xadd asrarta di yelu fil jëhri ci biral yaa man nga xam ne xadd fàtt na xelu na benn ngoog bu fekkee dañ laa digaloon foofu biral nga fàtte ko yelu kon da mel ni ku wàññi ndax xam nga biral ma nga bàyyi def fa yelu biral ma nga bàyyi moo gën a xumb yelu ma nga fa def ñu mel ni ñu digaloon la ñaar rakk njëkk ci timis nga biral ko nga fàtte ko yelu ko ba benn rakk ba su ba da ngaa bàyyi li ëpp doole wax ca kaw wax ci suuf kon da ngay mel ne ku wàññi nga sujjóot xabla salaam kon jàppal ne foo bàyyi bidul rek wàññi nga xabla salaam moo fa dëkk li mu doon loolu benn sunna gis nga ko du tee nga sujjóotal ko ba in jaxarta ndem biral nga bi ma xali sirri ci bérébu yalu faltas tit kon nga sujjóot albaax di yoo sujjóotu baxadi salaam duuna nukkurin ci lu weddi su fekkee dañ laa digal lañ yaru nag nga def fa biral da ngaa mel ni kon ku yokk mel ne ngay julli takkusaan mbaa tisbaar lépp yàllu la kon saa yu doolee foofu rek tisbaar ba ba takkusaan rek kon yokk nga ndax la fa dëkkan mu yelu la nga fa dafa gën a xumb kon na ngay jàppe am ndooleen daal sujjóot ba'da salaam kon gis nga ñaari suñu nangu ñoo xam ne kenn ko ci bàyyi rek def fa moroom ma danga ko sujjóotal boo xasee weesu yooyu yaar nag moom boo bàyyee te benn suñu kese kese moom du aajowu sujjóotal wa in takallamta ndeem wax nga lu tax ngir juum fas judan na nga sujjóot ba'da salaam bi ko li sëyrin ngir ndolleen xat badaa ba feeñ na nee bu fekkee da ngay julli ba noppi wax waaye wax nga tëyoo ko da ngaa juum rek mel ni nga fàtte ne da nga doon julli kenn woola rek nga wuyu ko wala nga jekki-jekki ne ko eh jox ma lee fekk na nga doon julli waaye fàtte rek a tax kon wax ngir juum la nga sujjóot ba xam ne salaam koy jàpp ndolleen rek nga sujjóot ba xam ne salaam boo waxee te tey ko nag moom julli ga yàqu te ko ajuwul ci defar julli ga nga wax tey ko moom julli nga day yàqu wa kullu man képp koo xam ne sallama salmal na min rak xatayin tukkee ci ñaari rakka su taxawee ngir juum fa baax di yoon kon su jootu baax da la si ma war na xale ci moom nee nag boo amee ñaar rakka daal di koy fàtte wax asalaamaaleykum fekk fekk muy geneen julli goo xam du suba kon na ngaa jum rek sëlmal waaye foofu du pré bu sëlmal kon da ngay jóg rek jàll ba noppi nag jàpp ne yokk nga daal di boo sëlmalee nga sujjóot wax de salaam kon saa yu sëlmalee ngeen juumte rek fekk julli gi da ngay jóg àggale ba noppi nag daal di sujjóot wax de salaam wa man yasit ku dolli rak xatay ni ñaari rakk aw rak xatu wala benn rakk li sax ngir juum fal baax ji kon sujjóot baax de moo koy war duuna mari ni ci lul fenn nee boo juumee ba yokk ci julli ga benn rakk wala ñaar ki kii tisbaar boo ko doon julli jum ba def ko muy juróom mbaa juróom benn ñaar du ko tax a yàqu ngay def rek ba xadi salaam waaye na julli gu boo juumee ba yokk ci lu toll ay rakkaam nag mu yàqu ni ki suba boo ca benn bu yàqu waaye boo juumee ba yokk ci ñaar muy ñeent du yàqu tisbaar boo boo juumee ba yokk ca ñeent mu yàqu ba tax mu ne laakin na ma mislu salaatin waaye nag kem ak julli indi yu sag ndem def na ko dolli fii xaaj julli ga fa tàbbatulu kon dana yàqu da daa mën fa ka nga xam ne xadd naqad gëstu na xam-xam tak takk bi daal mooy julli gum mën di doon boo ci yokkee benn rakk mbaa ñaar waaye àggul ci lim bu toll ne ay rakkaam su boobaa du yàqu da ngay sujjóot rek baax de salaam ni ki suba niñ ko misaale boo ko defa ñett koy da ngay sujjóot rek baax de salaam waaye nag boo ko defee ñeent moom mu yàqu ba tey lu mel ne gee boo ko defee juróom-ñett mu daal di yàqu kon julli koo xam ne juum nga ba yokku ca li mu rakka yu toll ne ay rakkaam rek su boobaa moom day yàqu waaye li fekk àggoo foofu rek moom da ngay sujjóot baax de salaam waati na nga dikkee ida shakakta ndem sikki sàkk nga fil kamaali ci matuk julli ga bi maa ci la nga xam ne te shukk da nga sikki sàkk fii ci moom bi tawaa bi ci ab toftaloo li xawli asiyax ngir waxi sëriñ sa zawit tawfiix ñetti waroom dëppaleeg yàlla ne ashaku sikki sàkk ci nuqsaani ci gwàññi kat taxqiiqi mi ngi mel ne ak dëggal ñu ne boole sikki sàkk julli gi mat naa matul da ngay jàpp ni matul rek daal di koy mottali boole sikki sàkk sax ndax def nga farat sàngam am defoo da ngay jàpp ni defoo ko rek daal di koy def waaw nga xam ne moom daal sëriñ si nee nañu booy sàkk ci wàññi nga wàññiwoo moom mu wóor la ne wàññi nga ñooye moo doom nga xam ne kon loolu moom takk-takk bu wóor la saa yu sikki sàkk rek julli ci mat naa matut la ngay sikki sàkk jàppal ne defagoo ko daal di koy def rek ba noppi nag nga sujjóot ba xam ne salaam wasjud na nga sujjóot isa shakakta ndéem sikki sàkk nga fii ka sajidatin ci lu mel ne ab sujjóot min baax di ma atayta ci gannaaw ba nga dikkee bi xaa ca moom sujjóotal nag baax defoo ci gannaaw sërmalam ba ñu ne boo dee sikki sàkk sujjóot nga am sujjóotoo ngay jàpp ni sujjóotoo daal di sujjóot te bu julli gi jeexee nag ba nga sëlmal nga def ba salaam ndax da ngaa jàppan rek ni sujjóotuma te boo demee fekkan nga sujjóot pour rukkoo itam noonu la boo doon sikki sàkk rukkoo nga am rukkoo woon ngay jàpp ne rukkoo man na na nga sëlmal in shakakta ndéem sikki sàkk nga ci sëlmal ba wala mu yettul te yeggut bi laa sujjóot ci lu sujjóot yaaxu laa ma bu fekkee da julli ba mel ni ku noppi julli gi di nattab li boo xam nag wax nga asalaamaaleykum wala waxoo ko waaye yaa ngi na nga meloon rek toog fa nga toogoon kon dégg yaa ngi sikki sàkk wax nga asalaamaaleykum ak waxoo ko da ngay jékki-jékki daal di wax rek asalaamaaleykum mu daal di baax te du aajo nga sujjoot ba xam ne salaam ama isa lam yaqrub daal dem jegewut nag zamaanu jamono ja aw xarajte wala ci jàkka fal butlaanu kon loola mooy yàqu julli bu fekkee da ngay ba wax naa asalaamaaleykum am waxuma koom déet nag koy nattable yàgg na mbaa boobu yàggut waaye jóg nga fa nga doon kon da ngay jàpp ne julli ga yàqu na rek nga julliwaat wa amur na nga digal gaw yi waswasat nu waroomu jax-jaxee xel pittar ki ca bàyyi ga walaaye ji oona te duñu dikke di kulli shakkin ci gépp sikki sàkka laakin waaye xale yi war na leen mutlaqan ci lu mu di doon ay yasjudu ni sujjóot ba'da salaamihim ci gannaaw seen sëlmal li nat bindi ak sopp yuq sa duug def na ko jublu koo xam ne gis bu ne du jénnal guddi ki ba bëccëg bi bu dee julli day sikk sàkk ba xam juum naam juumut te du xam lam juum na table julli gi mat naam matut juum naam juumut te du xam dara ca loola kooka bu ko toppee xelam yàqu mën naa andi sax ak ndof wax ne ko rek yow loo mën di sikk sàkk te bul ko andi jàppal ne rek yow julli gi mat na bàyyi ko noonu rek te saa yu sëlmalee rek ñu sopp ci moom mu sujjóot baax de salaam ndax toroxale ko seytaane ndax ci seytaan lay bàyyi ko bu saytaane xësi xam ci ni kii ku baax la ku bëgg lu baax la day seet nu mu koy yàqale bu ko defee lu muy def rek mu ko cay sikki sàkkaloo di ko ca loo yaar moo tax na ñu bëgg rek ku ko toroxal bañ koo topp looy jax-jaxe rek daal di koy bàyyi fa saasa doy loola nga am rek boo ko defee nag yàlla mën naa def mu daal dañ fa saasa mu des nag ki nga xam ne moom bis bu ne mu juum waaye nag la muy juum dana ko xam kooko nag kon ndegam xam na lam juum na ko defar waaye moom itam ndegam bis bu ne njuum te dal ko bu fekkee day lu sàkk woon sujjóot xam la mbaa baax da te gis nga ne moom bis bu ne mu dal ko kon dañ ko koy jéggal rek ne ko ndegam bis bu ne mu dal la kon na nga defar jëmmi njuumte li waaye la ci waroon a juddoo nag ci sujjóot xabla mbaa bax da jëkkal nañu la ko wama xalaaman du war koo xam ne jaxara biral na bi xunóot yi ci xunóotam cheyun dara walakin waaye xam duhoo tayam nga kuruxun ak sibla jaxara goog feeñ na xunóot xam dañ ko sopp ci jullit suba ci ràkkab ñaareel ba gannaaw boo jàngee fatiha ak saar waaye nañ ko sopp nga yelu ko kon nee boo ko biralee nag dara du ci nekk maanaam du tax nga sujjóotal biral ga mbaa dara waaye nag nga tey ko bu nag biral ko nag moom lu ñu sib la saa idi niki aji yokk suuratul awsaar fi rek xatee ni rakk ax ni dinaa jublu tey ñaar ya mujj fil ma suurati ci la ñu nettali ñaar rakk yu mujj mbaa benn bu mujj ca timis faatixe kese lañ ca digle amuñu saar ba juumee ba defaale ca saar maanaam jàngale ca saar nag ba tey dara du ca war du aajowoo nga di ca sujjóot waaye nag nga tey ko di ko def nag moom sit nañ ko waxa kasaani ki ni xabdun ab jaam salla boobu jëli na ala xayril bashari ci ngeen ji mindee fi li samhi zikri yi ngir dégg aw ngir dégg ak tuddam ni man ci ka nga xam ne dakara tudd na ko kooku nag muhammadin mooy muhammad salla yàlla na dool tedd allahu yàlla xale yi ci moom mu salli mi aji dolli ko wóolu wa kulli ak képp koo xam ne waalaahu méngoonte nag moom te xadd kaanu moo xam nekk na zaaka loole xam dandi ak tey aw saxoon wala muy njuumte xaraa boobu gaar na aw xat jaraa wala mu daw fii xiyaamin cib taxawaay aw juloosi wala ab jataay ba tey nee boo doon julli dégg ku tudd tur yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga daal di julli ci yonante bi koy du tax ñu diggal la ca sujjóot moo xam nag daa fekk nga taxaw moo xam daa fekk nga toog moo xam yaa ko tey moo xam teyoo ko wa man xadd xara ak koo xam ne jàng na li suura tey ni ñeel yaari saar aw ak sara mbaalu kóob aw xaraja wala mu génn min xaaj aw saar waa atama date mu jublu il di ñeel weneen saar aw rakaxa wala mu rukkoo xawla tamaam njëkk matuk saar fala sujjóot a jot sujjóot fi jamiit nekk ci mboolem loolu aji ma xam mboole seen te booruñ julli benn rakk rek nga jàng ci yaari saar mbaalu ko ëpp du wàññi dara ba tey booruñ julli tàmbalee jàng aw saar ba yàgg jeexul sax nga bàyyi ko dem ci weneen koy du wàññi dara wala nga tàmbaliwu saar jeexut bàyyi woo ko dem ci weneen waaye danga koo far bàyyi noonu faru ko loolu lépp dara nekku ca kon jàppal ne benn rakk rek nga jàng ci lu ëpp wenn saar ni ki yaar mbaa yett wàññiwul dara tàmbali saar yi ba yàgg nga bàyyi ko jàll ci weneen wàññiwul dara tàmbaliwu saar ak nga bàyyi ko faru ko wàññiwul dara waaye nag jàppal ne gënut li gën daal mooy ci yoonu Maalik moom nga jàng wenn saar te àggale ko rakk bu ne daal jàng ci wenn saar te àggale ko ñoom lañ gën a taamu wa maa xalul mushiiri war aji junj fi salaati julli bi yedin ci loxo aw raasin wala bopp sujjóot ak sujjóot aat bi aji dikk di julli junj ak sa loxo mbaa junj ak sa bopp du tax sujjóot war ca dara waru ca mën naa am nga junj tàllal sa baaraam mbaa sa loxo mbaa nga dag sa bopp loolu lépp du tax sujjóot war ca wa kullu man képp koo xam ne xat takarara baamu na faatixal kitaabi faatixatal kitaabi faatixe téere bi li aj sax win ngir njuumte intara boobu gaar na fa bax daxoo kon na sujjóot ci gannaaw sëlmalam ba nee na boo juumee nag bo baamu faatixa jàng ko yaari yoon ba yett waaye njuumte rek ko waral teyoo ko dañ koy jàppe ab yokk rek nga sujjóot ba xada salaam waaye nag wa insa ndéem lii turi xameef na ko li xam di ñeel tey bu dee ci naxaw dañuy bañ wa insa ndéem lii te boo nee itam wa indul yi neem xameef na bi duri jénga seen teg ci dra ji nga xam ne moo jiitu itam ñu bañ ko waaye loolu nag ñuy jàng naxu lay gën a yitteel yow noo ko waxee rek fii nga toll ba weesu ko baax na wa insaan yéem lii duri xameef na ku li xam ne muy ñaar ak tey fa zahiru kon zahir sa al butlaanu mooy yàqu julli ga xind al axdar yi fa abdourahman al axdar yi nee bu fekkee da ngaa baamu fatiha te yaa ko na xam ne juumoo kon ku seet na laxdar yi waxe ci zahir moom day ne julli nga yàqu na da waxee daal boo ko dee xool ci sax day mel ne moom daa bëgg wax ne saa yoo baa moo faatixa rek te tey ko rek sa julli yàqu wazun qifaadin boroomu sippiku duñ xinaañ ci sëgg li rukkoo jëm ci rukkoo lay sa loxo déddi ko ñeel rujuxun ak dellu li dikri suuratin ngir fàttali ko aw saar nee nag boo demee ba sëgg jëm ci rukkoo ba fàttali ko ne ah yow ko jàngoo aw saar kon fàttaliku saar wa du tax nga siggiwaat ne day jàng saar wi ndax da jàpp ne rukkoo bi nga sëgg jëm ci moom farata la kon da ngay jàpp ne saar wa raw na la rek te saar wi bu la rawee li ci ëpp moom ñett suñu moo lay raw mooy saar wi ak taxawaay ba ak biral ga mbaa ba kon nag da ngay jàll rek noonu te sujjóot xable salaam aw jib waralal li man ñeel ki nga xam ne dakara fàttaliku na sirran yalu xabala rukkoo ci njëkk rukkoo ihaadata jamihima baamu mboolem la nga xam ne xara a jàngoon na ko bul fàtte ne biral ci fañ la ko digale ak yalu ci fañ la ko digale lu ci nekk sunna la waaye nag boo xasee sëgg jàpp ci say wóom rek yalu ga raw na biral ga raw na waxam nañ nag koo ci bàyyi rek la nga war sujjóot mel na ne jàppoon nga ko fi mu toll léegi nag mooy ba nga taxawee jàppagoo ci tey woom nga fàttaliku ne ah yow kat fii dañ la fee diggalan yalu te yaa ngi biral mbaa fii dañ la fee diggalan biral yalu fi mu tolloogu nag mooy nga taxaw sëgagóor ko dal di fàttaliku ne a ah, man kat maa ngi biral waaye yalu moo dëkkan fii mel ne tispaar mbaa takkusaan kon nee na ndegam moom sëggagoo da ngay baamuwaat la nga jàngoon daal di ko yelu béraloon ko ko waaye da koy baamuwaat te yelu ko ndax ndegam sëggagoo rek dabaatal ga wéyagut xam nga ne nag la nga jàngoon biral ko soo ko baamuwaatee yelu ko kon dolli nga am na fa nag fooy sujjoote ngir baamu ga am na fa itam foo xam ne doo fa sujjoot moom lay bëgg wax in kaana dem nekk na zaaka loolee fi suurati ca saar wa wax daxaa moom rek aha daxaa mu baamu ko wala sujjooda te dee sujjoot ba daxaa muy nekk ci gannaawam su fekkee ne fatiha ja moom juumoo ca aw na yoon da ko yelu dañ la ko digale saar wa kese rek moom nga biralan daal koy fàttaliku baamuwaat ko yelu ko kon loolu dolli na sax waaye du aajo nga koy sujootal bax da salaam su fekkoon ne nag fatiha ak saar wa yaar yépp nga biralan wëlbatiku nag xam ne danga ko war a yelu nga daal leen di yelu ñoom ñaar ñëpp kon loolu moom da nga sujjoot bax de salaam ba tey bu fekkoon ne fatiha ja kese itam nga xam ne moom nga biraloon wëlbatiku nag xam ne ah moom kat fii nga toll waxtu yàllu la nga daal koy baamu yàllu ko ba tey moom it da nga sujoot baxadu kon takk-takk bi mooy bu fekkee ne fatiha ak saar yaar yëpp te nga juumoon ñu waxan la yàllu nga def fa biral nga teel koo fàttiku te sëggagoo kon boo leen baamoo yàllu leen da nga sujoot baxadu salaam ba tey bu fekkoon ne fatiha ja ca nga juumoon biral ko te fekk ñu digalal la fa yelu gannaaw ba nga fàttiku ko daal di ko yelu kon moom it da nga sujjoot ba xadda salaam waaye nag bu fekkoon ne saar wa kese ca nga juume moom nga biralan gannaaw ba nga wëlbatiku yelu ko ndax xam ne yaa ci juumoon waaye moom fatiha ji aw na yoon kon foofu doo sujjoot ba xadda salaam loolu mooy teqale bi moo tax mu teg ci wa in yëkku ndem dana nekk almatruk la ñu bàyyi fil hamdi ci fatiha aada kon bu baamu ko wa sajada te mu sujoot albaadi ya sujootu bax di salaam is ngir dalika loolee zaadu ndoleen la ni ma ko waxee woon léegi mooy door a ñëw ci woy mooy fatiha ja moom nga biral gannaaw ba nga ko biralee nga fàttaliku ne ah foofu kat tisbaar la te des fa yelu nga daal koy baamu yelu ko kon moom da nga sujjoot bax di salaam ba tey bu doon moog saaba ñoom ñaar ñëpp itam ca la la loola dal ba kon na nga sujjoot gannaaw boo baamoo waaye nag bu dee saar wa kese moom ca nga juum biral ko wëlbatiku fàttaliku ko daal di ko moom moom dong du aajowoo sujjoot wax de lañ koy teqalee wa in yafut ka ndeem raw na la biru koo hin ci rukkoo yaa xulaa man yow as ngóor fas jut koom sujjootal qabla salaami ci njëkk salmal li tarki jëfrati ngir bàyyi biral lee nga weesu woon mooy fañ la digale woon yelu ni ki tisbaar mbaa tàggusaan nga doon fa biral ngir juum loola leeral nañu ko bu jàll si nag ci fuñ la digale woon biral mel ne ñaar njëkk ci timis wala ñaar njëkk ci gee wala ñaar ay suba lim ci njëkk wax nag mooy fañ la digale woon biral bu fekkee ne xës nga jàpp ci say wóom ba noppi door a fàttali ko ne ah man kat fii biral lañ ma fi waxan waaye fàtte naa ko ba yelu koy da ngay jàll rek te xam ne bàyyi nga biral te kon na ngaa mel ne ku wàññi ndax yelu ma nga fa def biral ko gën a xumb nga sujjoot nag kon xamle salaam moo xam nag lool dalaa dal ca fatiha ja wala ca saar wa waaye nag foofu am na teqale nee nañ bu fekkee ne fatiha ja aw naw yoon nga xam ne saar wa rek ca nga juum yàllu ko ta fekk mu doon waxtu biral kon foofu bi ne saar wa kese moom du aajo ngay sujjoot am nañu ne sax boo ko sujjootalee xamle salaam par julli ga yàqu waaye nag bu la dalee ci yaar yëpp nga xam ne fatiha ak saar wa yaar yëpp nga yellu te fekk ñu digaloon la fa biral moom da nga sujjoot xabla salaam ba tey bu fekkee ne fatiha ja moom rek ca nga xam ne foofa biral moo fa dëkkoon yow nag koo yellu waaye saar wa aw na yoon koy dutee nga sujjoot xabla salaam waaye bu dee saar wa kese moom waaye fatiha ja aw na yoon du aajowoo sujjoot xabla salaam kon foofu am na teqale nga ñëw nag ci bu fekkoon ne laata ngay sëgg di rukkoo rek ci nga fàttaliku ne ah man kat maa ngi yàlla waaye fii biral lañ ma fi digaloon kon bu fekkee ne jot ngaa jàng yaar yëpp muy fatiha ak saar wa ci yelu waaye sëggagoo gis nga niñ ko waxee sëggagoo kon na nga leen di baamu daal leen di biral te su boobaa kon na nga sujjoot bax de salaam ba tey bu fekkee ne faatiha ja rek ca nga juume ndax moom nga yelu ba àggal door a fàttali ko ne ah man kat fii biral moo fi dëkkoon nga daal di koy baamu biral ko ba tey moom it da nga sujjoot wax de salaam waaye bu doon saar wa dong itam du aajowoo sujjootal mooy bu fekkee ne biral nga faatiha ja dañ la ko diggale foofa saar wa rek moom nga njëkk a juum yalu ko gannaaw ba nga wëlbati ko nag léegi biral ko ba tey moom du aajowoo sujootal ba xam salaam kon daa jàppal ne boole juum ci faatixa jaak saar wa ñoo bokk àtte juum ca faatixa kese itam moom ci yaar yëpp ñoo bokk ate waaye juum ca saar kese moom day am àtte boppam maanaam saar wa kese moom bu dee ci moom rek nga juum ci fàtti ko yelu mbaa fàtti ko biral moom danga koy bàyyi noonu rek kenn du la ca wax dara dara si daan bëggee takk digg bii dangay wax ni daal yelu mbaa biral moom lu ñu la ci sant ci béréb nga fàtte ko paxa sëgg jàpp ci say woom rek jàppal ne moom doo siggi ngir ne dama fàtte woon a yelu mbaa dama fàtte woon a biral da jàll rek te xam ne bàyyi nga yelu mbaa bàyyi nga biral te ñoom ñaar kenn ko ci bàyyi rek am na sujjóot bi la ca santan bu fekkee jotugul a sëgg rukkoo nag moom dañuy seet bu fekkee la nga jot juum ca yalu ga mbaa biral ga amul solo ndax da ngaa jot a jàng rek benn laaya mbaa ñaar lu deme noonu ñu digaloon la fa yalu nga def fa biral mbaa ñu digaloon la fa biral nga def fa yalu waaye weesoo benn laay mbaa ñaar loolu da ngay jàll rek bàyyi ko noonu kenn du la ca topp dara jéggal nañ la ko waaye nag fatiha ak saar wa yaar yëpp mbaa kenn ca ñoom ñaar bu fekkee moom nga doon biril baa nga di ko yellu ba yàgg nga fàttali ko ne ah man kat maa ngi juum ki ma fi def kat muy biral mbaa yellu dëkku fi moroomam mais moo fi dëkkoon foofu na kon ngay seete ndegam jotugoo sa ko moom da ngay baamuwaat la nga jàngoon def lañ la fa digal muy yelu mbaa muy biral kon na xam nga ne ab yokk lay doon ndax ndegam la nga jàngoon dellu nga ko jàngaat kon loolu ak baamu la te ak yokk la nga seet na loolu la bu fekkee dalaa dal ca faatiha ak saar wa yaar yépp kon moom na nga sujjóot ba xam salaam bu fekkee itam dalu la ci saar wa waaye dal na la ca faatiha ja ba tey na nga sujjóot ba xada salaam waaye nag bu fekkee ne ca saar wa kese kese ca la la loola dale kon dees la sant sujjóot mbaa dara bàyyi ko noonu rek kon daal na nga takkaale foofu ne jëmmi saar wa kese moom juum ca ci wàllu yalu mbaa biral moo xam da caa juum wëlbatiku baamuwaat ndax def fa la fa dëkk moo xam danga fàtte noona yàllu ga mbaa biral gi ca saar wa ba xa sëgg jàpp ci say woom lu mu ci mën doon rek amaluñu ko solo duñu la ca teg dara dara dara bala ñu laa teg dara ci bàyyi yàllu mbaa biral rek nga boole ko faatixa jaak saar wa mbaa faatixa kese ja meneen daal loolu mënees na ko takke noonu waddax ku ree fi salaat ci biirub julli xam dan ci tey yóbbatiluhaa dana yàq julli ga bit ti faaxin ci dëppoog ñëpp kës sax wi ni ki njuumte waaye duunal ittifaax ci ludul ak dëppoo boo dee julli ree te tey ko la wax ne ci ne yàqu na boo dee julli nag ree waaye téyoo ko ci da ngaa fàtte woon ci julli nga nekk moo tax nga ree kon am na ñu ne julli ga yàqu na am nañu ne julli nga yàquwut waaye saa yu reyee te rey ko rek moom julli nga yàqu na te ñëpp maase na ci loolu te walay sa yaddaxaku du ree fi salaati ci biirub julli si waa ji xaflatin ndare boroomu càggante aw mutalaaxibin wala aji fo xawaa kog beew na nde wala muminu aji gëm al muxlisu ji aji sellal buttuqaa fu borom ragal yàlla idaa xaama ñu jublu ina kulli salaam ñu jëpp julli